ànd ak yéen ci leçon yooyu yi nga xamee ne dañ ko daan def daan ko tasjil ci wàllum lu ci informatique rawatina lu aju ci wàllum Microsoft Office li nekkoon li ñuy wax Word ak euh, PowerPoint bi ak Excel Word bi nag yaakaaroon naa commencé woon nañ ko ba sor woon ci lool lool ginnaaw ba ñu arrêté woon ko ngir ay gàllankoor Eh, incha allah xam naa nag dañuy fas yéene continuer lool rek lii nag tey moo ñuy jëm ci li ñuy wax eh, PowerPoint nga xamee ne maanaam moom ci biir eh, Microsoft Office boobu ci la bokk moom nag PowerPoint boobu tey nag liñ ci jël moom daanaka day nekk loo xamee ne rek xam la lay doon rek xam la lan mooy PowerPoint ak tamit yenn ay wala yen icônes yi nga xamee ne mi ngi ci biir PowerPoint ñu koy faral di gis ci PowerPoint ñu xam ne waa loolu mooy lan ngir nga xamee ne bu ñu demee ba xuus ci biir leçon bi dëgg-dëgg dana yomb loolu ki nga xamee ne maanaam moom mooy eh, xool vidéo bi xëy na dana gën a yomb ci moom bu baax a baax ko gën a xam ne ne ko mbir mii mooy nangam mbir mi mooy nangam mbir mi mooy nangam bu ko defee maanaam toujours bu ñëwee bay liggéey rek ndax liggéey bu bu ñu ñëwee bay commencé liggéey yëf yi day gaaw gaawaay boo xamee ne xëy na naa am bu jiitu xam ne woon loolu mooy lan rek xëy na mën naa am tuuti muskila dina ci am kon moo tax daanaka kon dañu dem xam na rek lan mooy point point ak xam ne li ci aju lépp rek bu ko defee incha allah leçon yi ci toppaat ñu gën a ci yëf yi bu baax a baax incha allah euh, di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu feex ak bark ba nit man mën cee jëriñu bu baax a baax te yàlla rek tax kon bismillah ñu commencé ko euh, point point nag. Euh, comme ni ñu ko waxee woon léegi rek maanaam moom ab xasma la xasma biñ ko waxee maanaam mooy que ni misaal tey jii boo jëloon lu mel ne benn takku say takku say sayub sayub sayub matt ni muy baree noonu benn boo ci rocc rek dañ naan lii ab ab ab tuut la ci biir mat bi kon nag mën nañoo PowerPoint maanaam moom ab say la ci biir Microsoft Office moom PowerPoint moom nag wax dëgg yàlla man biñ koy jëfandikoo bari na lool. dafa nekk loo xam ne day dimbal lu bare bare ci ci yenn yi ci mbir yi lu ci mel ne képp koo xam ne da ngay def ay ardu yoo xam ne lu mel ne da def ay présentation yoo xam ne da ngay bëgg mu attirer nit ñi ba nit ñi bañ ci bàyyi xel euh, PowerPoint bokk na ci li nga xamee ne moo ñu may mën koo def ba day tamit PowerPoint euh, képp koo xam da ngay jàngale euh, di ard wala boog di présenter ab leçon ba day tamit PowerPoint daan la permettre nga mën koo def bala tamit powerpoint mënees na faa ah, monter vidéo boo xamee ne ñun ñooy xool photo yoo xamee ne yu ñu neex ñu monter ko fa ànd ak mu and ay photo yoo xamee ne photo yi day dem ànd ak son bi loolu tamit powerpoint mën nañu ko permettre mën nañu ko faa def bala tamit powerpoint mën nañ mënees na faa def liggéey fa lu mel ne carte membre euh, ba tey mën na fa liggéey ay ianlaan yoo xamee ne maanaam ay publicité yoo xamee ne xëy na dañ dañu ko sakkoon si ñun wala boog ñun ñun suñu bopp ñoo bëgg a def ay publicité point dana nekk loo xamee ne eh, mbir la moo xam ne danañu gën a jàppandale mbir moom ba mu rafet kon PowerPoint daal ci ci anam gu gàtt rek ci xamle ko moom dañ koy jëfandikoo ngir présentation boo xamee ne dana attirer nit ñi bu baax a baax a baax bañ ba bañ bëgg ko ndax mbir mu nekk rek liggéey booy liggéey bu fekkee ne eh, anam bi nga ko liggéeyee rafetul wala boog kii xool maanaam ñëwut moom daanaka mën nañu wax ne présentation boobu day xaw géey day xaw a soof moo tax kon ci gàttal rek bu dañoo commencé liggéey bi sax danañ la wax benn mbir mooy que ni PowerPoint moom toujours buñ la wanee yoon wi wan la na lii ak lii ak lii ak euh, pour liggéey bi jaar yoon pour liggéey bi nekk liggéey bi efficace wax dëgg yàlla ci ki lay waaye nag ci jëmmi nit ki lay ki jëmmi ki moom mooy am rax ba mooy am xememteef moom mooy xam lu rafet lu mu gis na xëy na jàpp na na lii bu ko boolee mbir mu rafet rek bu ko defee mu daal koy jël daal koy boole foofu waaye maanaam ki nga xam ne maanaam mooy jàngale wala ki lay leeral moom li mu lay wax mooy lan moo ko a lii mooy yoon yi ba mu rafet nag moom wax dëgg yàlla maanaam choix personnel la moo tax euh, ñu bàyyi sa xel baa baa xam ne rek liggéey moom loo ci def del xeeb loo def rafet rek neel ëllëg si dinaa def lu gën a rafet lii par mu gën a rafet point nag euh, bu fekkee ne maanaam machine bi day doog a bees wala boog xëy na bu fekkee ne lu ñu doon installé la du am PowerPoint dañ ci installé Microsoft Office boo ko ci installé nag ba pare nag moom bu ko defee day ci mujj daal ciy nekk bu ko defee bu dugg dañuy dem démarrer ci Windows démarrer bu ñu demee démarrer daal ñëw bés toutes les programmes bu ñu bésee tous les programmes daal di wàcc ba fi mu bind Microsoft benn mu nekk 2013 mu nekk 2010 moo nekk nii Microsoft bu ko defee ñu xool fi ñu bind euh, PowerPoint PowerPoint ñu xoolee moo nekk nii boo xoolee. Euh, Word moom moo nekk nii Excel moo nekk nii waaye ñun tey leçon bi moom fi mu gën a jëm mooy lan mooy PowerPoint yi wala PowerPoint la ñuy dem daal di bës ci liggéey euh, buñ ci liggéey nag bu ko defee PowerPoint maanaam moom lii moom mooy li nga xamee ne maanaam moom mooy moom waajaxa bi nga xamee ne maanaam mooy li nga xamee ne maanaam mooy feeñ ci kanam boo ko tujjee rek lii ngay gis nii maanaam moo fi feeñ lii nag maanaam moom mooy moom la ñuy wax euh, page PowerPoint nga xamee ne Euh, lii nii ñu ngi koy wax ay japaroma maanaam boo xoolee ma page bii nii ñu ngi koy tuddee japaroma japaroma lañ koy tuddee ñu bàyyi xel leen mooy ko ne wóot bu ñu ko musaan a tijji ci kaw fii nii bu ñu xoolee dañuy bindal document document dañuy dañuy bindal bu ko defee document boobu nag ni fekk changé wuñ tur rek document moo fay nekk ni ko noonu tamit PowerPoint euh, bu ñu ko tijjee présentation lañuy bindal ci kaw maanaam mooy ko ne ard maanaam li nga xamee ni ko bëgg a ard moom lañu bind fii ci kaw ni fekk demuñ ba changé tur wi nag tur yi du fi nekk tur wi nag bu ñu koy changé incha allah danañ ñëw léegi ci kanam incha allah nuñ koy changé ba am beneen tur bu fi nekk euh, nga xam ne ba PowerPoint toujours rek maanaam baar bi nga xam ne moo nekk fii maanaam baar bi nii nga gis ni ci suuf fii nii moom lu ñuy wax euh, diapositive maa ngi jum léegi naa ne page mooy kii waaye diapositive mooy mooy mooy jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi turu page bi mooy diapositive diaporama moom mooy fi nga xam ne ci ngay pour xool ko maanaam tey jii xarlu bu ñu defar ba pare bëgg a xool ba xam ndax bu génnee nuy mel

diapositive 1 de 2 1 de 1 li mi tekk mooy que ne lan mooy que ne diapositive bii nii ñu ñu am léegi benn rek la fi mooy que ni créé wu créé wuñ ñeneen kon dañ ciy diggee ne kon mën nañoo am fii 10 diapositive waaye toujours rek li mu diapositive ya ngay am da ko bindal fii ci fii ci suuf xam ne toujours rek heure boo duggee da xam ñaar pass nga am fii suuf comme na nga xam ne nañ nañ demee wóot heure bu ñu may ay pass mu ñu ko bindal ci côté heure bu ñu ci duggee dañuy wan ñaari diapositive moom moo nekk fii bu ko defee tamit euh, maanaam liggéey yi ñu ci bëgg liggéey yëpp maanaam dañuy xam ñaar page lañ am ak ñaar lañu soxla bu ko defee boo sax da lay bindal fii na la xam ne wan na la mooy diapositive 1 comme fii nii tamit nga xool ne moom maanaam mooy que ni liggéey ba liggéey comme ni ñu ko waxoon léegi moom moo lay wan liggéey bi maanaam naka lañ koy defee maanaam liggéey bi naka la mel maanaam bu ñu ci duggoon fii ne lay wan ni wan na la liggéey bi nii la mel nga xamee ne bu fekkoon am na liggéey bu ñu liggéey da koy feñal waaye fiñ toll ne comme defaguñ ci day indi maanaam page bi boo xoolee mu bind la fii 87 mooy ko ni mën nga koo page yi wàññi ko ba nga xamee da ngay gën a gis bu fekkoon dafa dafa dafa nga bëgg a xool lépp mën nga koo gën a gis boo neexee rek nga daa ko yokkaat yokk ko nii wàññi ko nii ba mu gën a ba mu gën a wàññeeku ak lépp kon loolu moom ci Diaby Tour bi mooy li nga xamee ne maanaam moom moo ñu koy may bu nekkee ci digg bi nag maanaam mooy que ni maanaam moom mooy yem na te euh, li ñuy li nga xam ne moom la nii lépp luñ ci bind day feeñ ñu bàyyi xel tamit leen mooy que ni phase du diapositive bi bu ñu ciy bind bu buñ bindee ba nga xamee ne weesu na euh, kii bii ñu ñu nekk nii mooy phase bi heure bu ñu ko weesoo rek li ñuy bind dootu feeñati toujours li ñu bind day génn ci biti moo tax kon bi ñuy bind nañ fexe ba xereña ba toujours ñu bëgg mu feeñ rek ci photo bi wala li ñuy enregistré ñu fexe ba mu nekk ci kaw phase du diapositive bii diapositive euh, nag boo ñëwee ci accueil bi toujours buñ tujjee page bi comme lii moo ciy nekk maanaam mooy cliquer pour ajouter un titre toujours nag lii na dañu baaxoo di ko effacer bu ko defee mën a indi suñuy modifier yoo xam ne ñoo koy def toujours bu ñëwee dañu koy effacer misaal effacer xamee léegi maanaam cliquer pour ajouter dootu ci nekk nga xam day nekk page vide nii kese bu ko defee nag bu nekkee nii nag moom bu ñu bëggee yokk beneen diapositive maanaam yokk beneen page am nañ ñaar yoon yoo xam ne nañ ko yokk benn nga daal di cliquer ci kaw diapositive bi nii ci kaw ba mu ba mu cliquer wu nga daal di bës copier daal di bës coller bu defee maanaam mu la 2 nga xam ne boo ñëwee dana la 2 ci nga ne lewoon na la 2 2 2 mooy que ne ci page 2 ci li mooy diapositive boo xam ne la nga xam ne boo ma créé waatee 3 danaan ma de la waaye yaa ngi ci page 1 bi boo ñëwee fii mënuma ñetti page la waaye yaa ngi ci page deuxième bi boo ñëwee ma créé waatee ay yeneen page lu mu bari bari mën naa dem ba am ay 20 misaal buñ 20 buñ buñ keroon lu mel ne 20 page boo xoolee fii danaa la ñuy nekk 10 euh, misaal nañ yokk benn muy 20 yaa ngi ci 20 page nekk ci 20e bi boo ñëwee fii danaa la am nga 20 page waaye yaa ci 17e bi fii yaa ngi ci am nga 20 page waaye yaa ngi ci 18e bi nga xam ne tey jii toujours rek buñ jógee kii buñ cliquer ci kaw nii ba pare dañuy bës copier daal bës coller bu ko defee mu indil ñu yeneen diapositive yoo xam ne moom moo ci yokk bu ko tamit fii tamit may na fay yokk ay diapositive nga xam ne fii moom boo xoolee yokk na yokk na yokk na mooy que ne nekk na la deux yaa ngi ci deuxième page bi waaye nag ci vingt et un page waaye ñu am lu tuut luñ carlu mooy que ni sànq seetlu woon nañu sànq bi ñuy copier fii nii euh, yëf yi amutoon luy feeñ fii nga xamee ne maanaam cliquer pour ajouter un texte nekku ci woon sa sànq biñ biñ biñ indee lii da da cee am biñ indiwee léegi de indee lii bii da am loolu lu ko waral mooy que ne lan mooy que ne loolu normal la lool dafa da xanaa lu lu yenu maanaam la ndax li tax mu yenu maanaam mooy que mbir mu nekk ni nga ko copier rek noonu lay ñëwee c'est-à-dire mooy que ni bii nii bi ma koy copier dafa moo tax page lu ma copier rek daanaka noonu lay ñëwee du am dara waaye page bii nii fi ma ko fi ma ko jëlee nekkut copier ko dama ko jëlee ne fa jëlee fii nga xam ne yaa tànn page bu la neex fi mu toll nii page page fii mën nga fay façon bu la neex nga tànn façon bi waaye façon boo ci tànn rek ak bu mën a doon rek maanaam boo ko copier moom moo tamit noonu lay mooy fi ne page bi fi ne boo ko copier boo ko la même chose moom noonu mooy que ni day am day moo tax ñu ne la toujours pinsa yi pour nga boo doon liggéey liggéey boo xam dafay dafay xaw a bari toujours mënoo ñëw fu nekk nga taxaw fa di supprimer du ko supprimer mu yàgg xam nga loolu day day xaw a yàgg loolu day jël day jël temps fu nekk nga fay taxaw daal di daal bës bës clic boo ba bësee clic droit nag daal di bës coupé bu ko defee mu koy supprimer fu ne fu ne nga taxaw fa ba ba ko bës loolu day yàgg moo tax ñu naan la kon passe bu njëkk bi boo ñëwee rek li nga fiy njëkk fekk maanaam mooy que ni cliquer pour ajouter un un texte boobu bu ko defee nag daal di copier nombre passe yi xam ne moom nga soxla bu ko defee boo ko copier ba pare nag boo ñëwee yëf yi day daal di yomb caw bu baax a baax a baax kon moo tax toujours rek nañ ko supprimer ba pare daal di doog a kii maanaam fii boo neexee bi ngay créé fii au lieu que may tànn bi bu neexee may tànn vide bi vidéo bi bu ma ko tànnee tamit heure bu ma copier tamit noonu noonu noonu la mel nga xam ne page bi du am dara bu defee maanaam moom loolu mooy gën a noppale may taxaw may cliquer may may copier bi ñëwaat fii di di ko supprimer taxaw fii di ko supprimer muy jël temps kon loolu maanaam beneen temps boo xam ne da koy laajal moo tax daal ñoo na la booy booy def dara teel fexe ba euh, page bi nekk loo xam ne page bu bu vite lay doon bu ko defee nga xam boo copier yëpp rek maanaam ni nga ko copier noonu lay nekk du am benn maanaam maanaam loo ci loo ci supprimer waat nga xamee ne rek euh, comme ci ci kii bii nii ñu nekk maanaam mooy que ni buñ taxawee nii boo xoolee dafay def benn flèche maanaam mooy que ni PowerPoint loo ci mën indi ak lu mën doon moo xam photo la moo xam vidéo la moo xam son ak lu mën a doon ci gàttal loo fi mën a indi page bi rek boo ci taxawee maanaam boo taxawee nii xam nga fi ne boo xoolee tox toxuma fenn waaye bu taxawee nii ah damay defal a digg bu ko fee loolu li may permettre mooy lan mooy pour ma mën a déplacer loolu yóbbu ko fu ma neex misaal tey bu ma ci bësee ñaari yoon ci ci clavier bi mooy ci ci souris bi bu ma bësee nii fu ma neex laa ko yóbbu dégg xaaral ma supprimer supprimer bii bu ma ko supprimer moom damay ma ma koy yóbbu bu ma defee nii maanaam bu defee ñenn flèche yi nii bu defee clic droit mooy da koy supprimer waaye bu defee ñeent flèche yi boo ko lii mu lay may pour nga mën koo déplacer yóbbu ko fu la neex bu fekkee ne lii nii maanaam mooy ñaari flèche yi mu def te lay permettre pour nga wàññi taay bi muy tuuti wala nga mën koo yokk ba mu gën a rëy bu fekkee ne euh, fii nii maanaam mooy que lii moom da lay permettre pour nga mën koo tourner yóbbu ko ci côté bu la neex misaal bu ma ci bësee di tourner nu mu neex laa ko yóbbu dégg mu neexee ma tourner ko mu gën a tourner mu neexee ma yaa xam nu la neex kon daal nga xam ne kon bu defee lii nii mooy que damay may ma mën ko tourner ma mën koo yóbbu fu ma neex bu defee ñeent ñaari flèche yi may permettre ma man koo wàññi ak yokk bu defee euh, lii nii maanaam mooy que damay may pour ma mën koo tourner ci anam gu ma neexee kon loolu moom ñu leer laal ko ba ñu gën a dem di ko fàtte bu ko defee euh, bu ñu ñëwee ci euh, presse papier gi daanaka xëy na duñ ci yi ndax wax dëgg yàlla wóot bi leeral lañ ko fa lu bëree bari kon ni mu amee ci wóot rek noonu lay amee ci kii bi nga xam ne tey jii maanaam toujours rek ni nga ko waxee woon ci wóot bi nga xamee ne boo bëggee copier dara wala nga copier ko wala nga bëggoon a reproduire la mise en forme loolu lépp ñu ngi woon ci wóot bi incha a baax bu léegi ci la ñuy doolee jàppatarif bi bu xeetu ay forme la yoo xam ne mën maanaam tey jii boo xoolee page bii ni amul dara nga xam ne boo xoolee boo ñëwee fii disposition bi nii da leen pour bu fekkoon ne xëy na da ngaa juumoon ba supprimer maanaam ci liggéey pour ajouter du texte bii nii boo ñëwee fii da lay changer page boobu yóbbu la ko ci ni ni ni ko bëggee mooy thème office bi euh, bu dee rétablir biir mooy que ne dañoo liggéeyoon dara ci PowerPoint ba daal bu ñu ñëwee rétablir bii bu ko rek daanaka da koy da koy da koy supprimer lii nag moom ay li ñuy wax section section mooy section euh, incha allah bu ñu ko temps bi a dañ ci ñëw waaye euh, section boo ko waxee ci gàttal mooy que ni mën nañoo def noo xamee ne maanaam commencé un ba quatrième bii nii ñoom ñoo ñoo ñoo bokk nenn ñun tuddee xam ne ñoom ñoo bokk même tour ñoo bokk lépp di commencé un bi di commencé quatre ba bi ñu defal ko beneen kii ñu defal ko beneen tour moom tamit maanaam boo xamee ne maanaam ñoo bokk li ñu tuddee di commencé neuf bi ba kii bi ñu def ko ay tour nga xam ne daal section mooy que ni da def ay forme nga xam ne page yi bu baree mën na la ko def ay forme nga xam ne forme bu ma bi doon fii demee ne tawxiid nga xam ne day wane ne kon misaal misaal ma ci mooy que ni kon matière tawxiid mooy lan li commencé ba 4 bi mooy commencé 4 bi ba nangam noonu nga koy defee tuddee ko ay wutal ko ay allah bu ñu temps bi danañ ci ñëw la gën koo bu baax a baax bu dee ci police bi moom moom tamit leeral nañ ko ci office ba ci wóor bi moo tax daanaka du jër ci ñëwaat daanaka moom boo xoolee lii mooy dijjal mbind mi lii mooy sewal ko mu daal di jàng lii mooy def ci suufam ab ab ab tere mooy liñ naan ijaal mataxtoo xat nga xamee ne li nga xamee day am suruñe ci ci ci ci ci mbind mi wala ci li nga li nga bëgg bu dee lii mooy looy baara la da ngay baara mbind mi dégg nga a bi moom mooy mbind mi bu fekkee ne da ngaa bëgg lépp nekk ay majuscule ak yooyu euh, bu fekkee ne fii moom mooy couleur mbind mi bu fekkee ne fii mooy réel bu fekkee ne fii mooy gom gome mooy nga xamee ne boo xoolee liggéey bi da daa am lu mu fii mooy mooy réel mi ak yokk ko fii ren mooy changer forme mbind mi lii lépp daanaka xëy na waxoon nañ ko ci ci ci wóor bi moo tax daanaka du jo ñu ciy joxaat ay exemple yu bare bare xanaa dañ ciy jaar nii rek bu dee fii nii maanaam mooy ko ne mbind bi commencé càmmoñ bu dee lii ci digg bi bu dee lii moom mooy mu commencé si ndeyjoor bu fekkee fii nag mooy ko ne mbind mi daa nekk justifié lii mooy ko ne mbind mi lépp lay tolloo du am du am fenn fu ëppante lii lépp leeral lañ ko tamit tey ci wóor bi ba bu ñu bind bu ñu bëggee mu féete ndeyjoor maanaam toujours ñu bàyyi xel leen mooy ko ne buñ flèche bi dafa war a nekk comme ci lii lii nañu dañ ko fii la bës mooy ci bii bu ko defee ñaar yi bu nga xam ne kon boo bind du am benn problème waaye bu fekkee da nga bi boo xoolee ñu ne dañoo bokkuñ fu ñu nekk moo ko ne bii koy jàkkoonteel moo tax ngay fexe ba toujours booy boo ko fexee ba yóbbu ko fii rek fexe ba tamit ba di tamit li nekk ci côté ndeyjoor bi nga xam ne lépp ñaar yi dañuy méngoo bu dee càmmoñ nga bëgg nag bii a baax moom maanaam mooy na dañuy def bu ñu bind lu mel ne ay na ko utiliser bu dee euh, fii nii mooy mooy texte bi naka lañ koy mooy day nekk horizontal wala boog mu nekk horizontal comme ni nga xamee nga xamee ne ma ma mooy ni ni mu war a nekkee nii bu ko defee nii nii lay féetee xam ne boo xoolee menu bi la noonu lay féetee bu la neexee mu féetee nii bu la neexee mu féetee nii ba tey tamit bu fekkee ne fii alignement de texte bi maanaam mooy dañ ko def mu nekk ci ci ci droite wala ci centre bi mooy ci digg bi wala ci côté gauche loolu tamit mooy mbind mi wala photo bi wala liñ fi liñ ci indi liñ liñ côté bi ñu mu taxawee ko rek loolu lool foofu loolu lay jariñ euh, bu dee convertir en graphique smart bi moom maanaam mooy que ni forme bi naka la maanaam dañ koy jëmbal ba nga xamee ne bu ñu bind loo xam dafa am wala loo xamee ne dafa dañu bëgg mu indi lii lépp yaakaar naa leer lañ ko ci wóor bi moo tax daanaka dañ jaar jaar bu xaw a gaaw rek ñu bàyyi xel neen mooy que ni yëf yi moom ko bëgg nekk vidéo yoo xam ne xëy na du du bari bari nekk loo xam ne lépp day day màng moo tax daanaka vidéo bu ci nekk dana xaw a jël tout temps moo tax euh, bu dee ci fii nii danañ ci ñëw incha allah mooy fii liñ forme bi mën nañ cee jëlee ay ay ay forme forme bu ñu bëggee bind dara nga xamee ne toujours bu ñu ñëw PowerPoint moom toujours booy booy ko di ko jël forme bii nag daanaka ñu ngi koy fekk ci insertion waaye prince dañ koy fekk fii waaye moom tamit dana ci incha allah tey moom li ñuy tax a jóg moom xam ne PowerPoint ak lu ci aju rek bu dee fii nii mooy que ni PowerPoint dañu bàyyi xel leen mooy que ni toujours loo indi rek toujours loolu mooy nekk ci kaw toujours li nga mujjee indi mooy féete kaw bu defee nag maanaam fii nii buñ ñëwee mettre au premier plan mooy que ne bu ma indi woon dara ab tey ji misaal bu ma indi woon ab photo ji mu féete ci suuf mu bëgg ko indi ci kaw damay dana ci buñ ci ñëwee ci ay exemple yi leçon yi di dana gën a incha allah bu defee ji tamit ay formule yoo xam nañ maanaam maanaam for maanaam zone de texte yi ñuy indi di ci bind yii dañuy permettre nañu mën koo changé yii yëpp daanaka incha allah rabbi maanaam dana ci ñëw baax baax lii lépp maanaam mooy change de forme bi lépp incha allah dana ci ñëw bu defee tamit fii ci insertion gi euh, tableau bu ñu ci bëgg insérer bu ñu bëgg insérer bu bëggee insérer ab lu mel ne photo yi nga xamee ne moo aju ci jëmmi euh, machine bi ak capturer loo xamee ne maanaam toujours fuñ buñ mujjee dugg buñ bëggee capturer ak yu ni mel forme bi bi bi la wax léegi moo nekk nii mooy zone texte bi ngeen gis léegi fii nii par exemple doo ko fekk waaye boo ko fekku rek da nga ñëw insertion gi boo ñëw insertion daal di ñëw forme daa tànn loo bëgg taan bu ko defee daal di ñëw daa ko daal daal ci bind smart bi tamit moo moo nekkoon léegi ci kanam gisoon nañu ko léegi ci ci ginnaaw moom tamit moo nekk nii prince tamit day day xaw a réer waaye boo ko boo ko gisul rek boo ñëwee da nga ko fekk graphique maanaam mooy que ni bu ñu bindoon loo xam ne dafay am lu ñuy wax day am xisaab nga xam day am calcul wala boog lu bu ñu bëggee def ne loo xam ne yëf yi day leer nañ maanaam ñu calculoon dara wala boog ñu indi benn pourcentage wax nañu bëgg mu leer boo xoolee fii moo la koy leeral la bu baax lii nag daanaka ci Excel ko gën a utiliser bu baax a baax par exemple mën ngaa dem Excel liggéey ko ba pare daal ko unifié daal xam da nga ko fi copier pour fekkoon na xëy na da dara wala da def benn présentation pour bëgg mu gën a leer waaye nañ koy utiliser. Euh, ba tey tamit li ñuy wax euh, lien hypertexte moom tamit lu am solo la ci yëf yi moom tamit incha allah danañ ci ñëw bu baax a baax bu dee zone texte bii ne boo xoolee moom dañ ci dañ koy utiliser moom tamit di ci bind en tête maanaam moom tamit waxoon ko ci wóot maanaam mooy que ni page bi ci kaw liñ ci bëgg a bind. wala boog page bi ci suuf lu ci bëgg a bind wala boog bu fekk ne ay commentaire yu ñu ci bëgg a defee yëpp ci antenne bi danañ ko permettre incha allah moom tamit danañ ci bu baax a baax bu tamit danañ ci ñëw incha allah moom tamit moom xëy na formule boo xam ne dañ koy utiliser ngir di ci bind bind ñu rafet bu dee date heure bi mooy que ne toujours maanaam bu ñu bind dara ñu soxla woon date datu tay bi bu ko cliquer maanaam danañu permettre ñu mën koo indi moo tax incha allah danañ ciy ñëw bu baax a baax numéro de page bi mooy page bi boo ko defee ay numéro nga xam ne boo xoolee fii ne yëpp dafa bëri ay page page yu bëri bëri mu neen boo boo boo appliqué tout boo xoolee yëpp da ko def ay numéro page bu nekk mu defar ko numéro boo xamee ne da ko day feeñ bu dee équation bi moom tamit xëy na loolu ñi mathématiciens yi gën a euh, dimbali moom tamit bu fekkoon dañ doon bind dara bëgg koo leeral ci mathématique moom tamit fii danañ ci dimbali bu baax a baax bu defee nag maanaam video mooy fekkoon am nañ benn vidéo bu ñu bëggee indee ci wut ci ci PowerPoint bi moom tamit moo nekk nii fi ñu ko indee bu fekkoon ne dañu bëgg indi ab son son boo xamee ne dafa nekk ci biir machine bi dañuy ñëw audio à partir du fichier yaa ne maanaam mu lay indil son yi nekk ci machine bi man bu bësee rek dalay yóbbul ci machine bi yaa dem ba xool fa sa sa ay son nekk ngaa ciy ki liggéey daal koy indi bu fekkee ne maanaam euh, son yi nga xam ne maanaam mooy audio clipart mooy son yi nga xamee ne moom moo nekk ci biir machine bi nga xam ne boo xoolee dala ko indil fii maanaam boo xoolee boo ci ki liggéey rek son yi yëpp daanaka ay xeetu son la maanaam son yi nga xam ne moo nekk ci machine bi Euh, bu dee nag beneen bi ci mujj mooy enregistré l'audio moom mooy que ni maanaam enregistrement boo xam ne day nekk directement ci PowerPoint man tamit mën naa nekk man maanaam moom muy moo ko moo ko permettre kon foofu ci insertion gi bépp bépp beneen bu ñu jox incha allah bu ñëwee ci yëf yi dana gën a leer bu baax ba incha allah bu dee création nag euh, lii fa aju mooy que ni lu ñuy wax euh, message message page bi mooy que ni page bi yaatuwaay beeg yu ni mel nga xam ne maanaam boo ñëwee fii page bi nax day nekk paysage nekk portrait wala day nekk a wala yu ni mel page bi ni muy yaatoo yooyu yëpp ci maanaam mise à page bi moom moo la koy permettre bu dee orientation du kii bi nag moom mooy que ne page bi day taxaw maanaam nekk xam day nekk comme maanaam portrait wala boog mu nekk euh, paysage xam ne moom pour mu gën a yaatu ça dépend ci kii bind moom mooy xool li xam moo ko ci arrangé euh, bu ñu ñëwee ci thème gi nag maanaam mooy que ne muy jariñ mooy que ne jëmmi PowerPoint bi page bi ndax dañu bëgg mu nekk page bu mel nii maanaam boo xoolee yaa xool. pass mën nañu ko changé kon ñu ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne xëy na pass bu weexee rek duñ ko mën a waaye mën nañu ko changé def ko ay façon yu baree bare ci ay façon yu rafet yoo xam ne yaa yaa yaa tànn waaye ñu seetlu leen yëpp ay ñëwandoo yëpp ay ñëwandoo waaye am na foo xam ne bu ñu fa demee pass bu ñu neexoon pass bii pass bii rek moo mel nii pass bii du ko mel misaal tey jii bu ñu ñëwee ci lu mel ne comme style de année de plan jii nii boo ko bësee fii nii day am day am ay façon yu baree bari moo tax boo boo ci tànn rek misaal moo tànnoon bii moo bësee boo xoolee yëpp day changé moo ñëwee ba foofu tamit am na feneen fu ñu bind mise en forme l'arrière plan foofu boo ci duggee dafa am beneen beneen beneen beneen kii beneen dialogue bu fi bii nag boo xoolee fii nii ñu bàyyi leen may ko ne bu ñëwee fii page bii nii misaal bu ma defee nii misaal ma def ko mu nekk euh, bu bu verte a leer bu verte nii bu ma defee appliqué tout appliqué tout ah yëpp day yëpp de changé maanaam page bi day changé nga defee ma laal kii bu ma defee euh, misaal ma def ko mu nekk bu ñuul moo ko defee mu nekk euh, rattrapé kii bi boo xoolee page bi rek mooy changé waaye page yëpp du changé kon mu que ni foofu euh, boo defee boo ñëwee foofu bu ma tànn misaal fii ci kaw nii ay façon la bu ma ñëwee misaal ma tànn fii couleur couleur bu zone bu defee appliqué tout page yëpp day changé waaye bu fekkee maa def fermé rek mooy que ni page bii ma taxaw rek moom mooy changé waaye yeneen page yi du changé bu ko defee ne ma ñëwee fii euh, beneen bi ci topp mooy que ni apprentissage bi moo doon ay ay forme la moom tamit moo rafet bu ma tànn bii nii bu ma defee appliqué boo xoolee page yëpp lay changé c'est changé bu ma defee bu ma defee fermé rek ma mooy que ni benn page bi rek mooy changé bu ferme benn page bi rek mooy changé waaye page yi si des du du nga xam ne boo fii daf kii am ay façon yu bari yoo xam ne mën nga liggéey say page page yoo xam ne day day day day présentable bu ko defee tamit fii tamit mën na boo tànn boo defee tout rek boo defee appliqué tout rek yëpp dafay dafay dafay nekk bu ko defee nag par exemple page bii nii na ko def page yëpp nekk loo xam ne ay photo moo koy moo koy wër bu ñu neexee bu ñëwee ci troisième bii nii dañuy ñëw fi ñuy wax fichier ñëwee fichier daal dem ci misaal jël photo bi ñu bëgg a bi ñu bëgg bi ñu bëgg a jël misaal ñu jël photo bi bu ñu ñëlee bu ñu appliqué tout page yëpp gis nga boo xoolee page yëpp day am lu ko wër maanaam page boo xoolee am lu ko wër fii nii xam ne day day feeñ boo xoolee moo nekk ni xam day feeñ baax a baax mu ginnaaw gi lii ma lii ma lii moo ci nekk kon nag bu fekkee ne maanaam motif motif bi tamit am na ay façon moo tamit am na ay façon yu bari bari boo neexee façon yooyu ngay changer couleur yi yaa xool noo ko noo ko noo ko kiiwee nga changé couleur fii comme tamit fii tamit euh, fii ñu weesu léegi mooy que ni misaal day jii bu ma xoolee fii nii lépp dafa bëlo comme boo xoolee fii lépp dafa xaw a xaw euh, euh, xaaral ma jël photo bu comme boo xam na lépp dafa bëlo bu xoolee lépp dafa bëlo fii nii bu ma xayee ma def ko noo xamee ne côté yi côté yi day am ay ay xonq-xonq ak ak ak ak ay ay ay ay kii loolu nag fi ñu defee mooy que ni lan mooy que ni bu ma ñëwee ci page bi nii fii nii nga gis fii nii nga gis bu ma ci kéegee nii daal di ñëw couleur at koy def vert del xool ci kaw fii da nga gis ne fii day xaw commencé vert bu neexee ma ñëwaat ci laal ci kaw fii niw fii daal koy def daal koy daal koy def mu daal xaw a boo xoolee day gis na day changé bu ma ñëwee taxawaat ci kaw fii nii daal di bës fii nii def ko rose boo xoolee day day kii bu la neexee nga nga ñëwaat ci taxaw ci bii daal di changé def ko mu nekk misaal ma def ko mu nekk mel nii bu ñëwee bu ma neexee fii nii mana laa ko xëcc xëcc ko ba mu gën a yaatu nga xam ne yëpp nii la mel xam ne yàgg boo xoolee ci fii day day dem ak ñëw del xool fii day day day ñëw toujours yaa xool noo koy kiiwee ak noo koy bàyyee nga xam ne fii li muy jàng rek mooy que am lool xam ne yaa xool fu la nga def ci ci yoo lay nga xam ne toujours rek maanaam boo ci taxaw ci kawam rek maanaam boo ci liggéey fii am nga fa am nga am nga chance pour changer changer changer forme booba ba mu gën a rafet nga xam ne fi ne tey jii euh, comme ni mu mel nii boo neexee nga xamee ne dafa nekk 90 boo neexee ma def ko daa ko gën a réyal boo xoolee nii lay mel boo xoolee day tourné bu baax a baax ba côté bu ma neex boo neexee ma ma dugg fii daal xool fii façon bii nii ne façon bi la bëgg nga xam ne page bi nii nii lay tëggee nii lay tëddee nga bu ko paree ci lépp nag maanaam bu ma bësee appliqué tout xoolee photo bi page bi lépp day daal di mel noonu nga xam ne du amaate benn benn beneen kii kon daal page yi daal nit ki mën na cay defar ay page yoo ne day rafet lool ci lépp rek ci ay xereñu boppam maanaam moo koy créé boppam comme ni nga taxawoon fii ci coordonnée fii nii bu la nga a am deuxième bi tamit mën nga ci amee couleur yu bëree bëri troisième bi moo tamit da nga waaye maanaam li mu tànnee fii maanaam mooy que ni maanaam maanaam da ngay jël sa bopp boo xam ne yaa ko moom def ko mu nekk année plan boo xam ne day nekk ci ginnaaw ci ginnaaw kii bi loolu foofu loolu ko tànnee bu dee fii da koy am moom tamit fii tam boo neex nga changé moom tamit changé ay couleurs yi couleurs yoo yaa koy yaa koy tànn nga xam ne moom boo xoolee day day bu baax a baax toujours bu ma defee fermé rek appliqué tout daal di changé fermé boobu daal daa fay nekk euh, kon ci moom liñ ci gën a seetlu mooy que ni page ko defee ba nga xamee ne day changé bu baax a a baax ci ay couleur ak i ak ak photo ak loo xam ne moo lañ bëgg a année plan mën ko mel bu ko defee nag tradition transition maanaam li muy jëriñ mooy que ni lan transition dañ ci ñëw baax mooy li muy jëriñ mooy que ni euh, dañuy wax demi euh, passe bi nii niñ koy animé ba nga xamee ne buy ñëw xam nga boo xoolee vidéo yi da nga gis wala boog montage photo yi nga xam ne day am day nekk vidéo da gis par exemple bu benn photo jàllee beneen photo di ñëw da am na am na am am na nu muy duggee noo xam day xaw a day xaw am ab taar wala boog day xaw a jox vidéo bi ab ab taar ba mu gën a rafet loolu fi lañ koy defee mooy que ni phase bu nekk phase moo neexee ma tànn ko buy dugg mu mel nii nga xam ne dugg dugg dugg sin bi nii lay mel phase 2 bi ma ko dugg sin bi nii lay mel xam ne day mel ne luy fekki bi phase 3 dugg dugg dugg ni du bokk benn bu nekk ni muy ñëwee ak sama morom du bokk ma daa ko sama tamit changé ko def mu nekk lu mel ne xeetu fenêtre boo xam ne nii lay mel kon lii nii maanaam mooy que ni buñ buñ defaroon suñuy suñuy suñuy photo modifié lépp ba pare bu ñëwee fii dañuy permettre ñu mën koo defar ay dugg dugg yoo xam ne day jox ab taar maanaam li ñu neex ne ma liggéey bi ñu def pour mu gën a taaru bu defee ñu ñëw fii mooy que ni fii li ma jañ mooy ni paas bi bu ñu neexee paas bi euh, paas bu nekk buy ñëw ñu wutal ko benn son boo moo fee nekk misaal tey jii nii boo xoolee gis nga dégg nga son bu di ñëw boo ci taxawee son paas boobu buy ñëw noonu la mel boo taxawee fii nga ñëw wutal ko fi ab benn son mooy que ni buy ñëw noonu la mel boo neexee nga yaa xool son son boo tànn boo neexee def nii maanaam toujours rek paas boobu foo taxaw rek page bi ngay dégg ab son boo ne moom moom moo fay nekk bu la neexee nga daal dem ci maam son yoo xam ne xëy na prinsa yi euh, am na son yoo xam ne boo ko bëggee indi ci euh, fii day boo ko bëggee indi PowerPoint day bañ waaye day aajo nit ki xariñ man koo soppe ko am na benn application boo xam ne lu mel ne lu ñuy wax format facture nga xamee ne son bi bu nekkut euh, bu nekkee maanaam audio boo xam ne dañu ko enregistré prinsa day lànk da nga koy dugal daal koy def ba mu nekk MP3 pour nga mën koo indi bu ko defee nag foofu moom boo ñëwee moo lay permettre bu ko defee nag son bi bu ñëwee a dox normal nga xam ne bu la neexee passe bu nekk day am son boo xam ñëw buy dugg noonu noonu noonu lay dugg si nga xam ne day ànd day ànd day ànd ak dugg bi nga xam ne dugg nii ni nga ko defaree bii nii day ànd ak son bi nga xam ne boo ñëwee fii boo xoolee boo xoolee gis nga son boobu ngay ngay suuf muy kii moom ñu ñaa ñuy ànd amee ne yaa koy yaa koy kii nga gis li ñuy wax manuellement manuellement mu am lu mel ne ab diir bu nekk ci côté manuellement li may jariñ mooy kañ manuellement mooy que ni tey jii bu ñu benn présentation bu mu àgg manuellement manuellement gii nii mooy maanaam buñ buñu bu dara ci kanam mbooloo wala bu ñu ko mi nga xamee ne bu xoolee nii phase bi nii fi ñu ñëw na nii waaye boo xoolee doxut beneen bi ñëwut lu tax ñëwut mooy que ni lan bu ma a boobu day dem bësaatee beneen dem bu ma bësaatee beneen dem kon manuellement mooy que ni lan mooy que ni phase bi dama ko def noo xamee ne toujours rek bu jeexee li mu war a indi bu ko indee ba pare moom mooy demal boppam beneen page daal di ñëw xam loolu xëy na bu ñu defar ay vidéo ay son ay ay photo yooyu ci day ci dañ ko gën a soxla waaye bu fekkee ne xëy na dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy bu fekkoon ne kii dañuy jàngale nii kon boobaa du du woo ñu ñu ñu indi manuellement gi kon boobaa li ñu def mooy dañu koy def mu nekk après kon boobaa après lay nekk kon après bi may jégalu baax kon boobaa après lay nekk kon nga xam ne kon da ngay dindi manuellement génne boo neexee nga boole ñaari boo neexee nga def ko après waaye nag boobaa minute bi minute bi toujours li nga ko réglé la seconde yi toujours di diira bi rek bu jeexee rek mu doog a ñëw nga xamee ne bu la neexee tey jii da ngay da ngay da ngay def manuellement gi daal di daal di din après gi bu neex nga def nga def après gi boole ko ñoo ñëpp waaw boo ko defee après nag maanaam mooy passe bi bu jeexee maanaam moom passe passe bi sopp mooy ñëw directement moo def maam til xaayañ lay ñëwee yow doo doo bës mu mooy ñëw boppam bu defee nawet pass bi nag bu nga ko defee pass bu nekk nag day aajo bu fekkee ne pass dafa dafa bëri day bu nekk taxaw fa bu ko defar moo tax ma ne ma waxoon la commencement ma def ko lan après daal dindi manuellement bu defee ma ma laa ko réglé ñaata minute laa bëgg euh, mu mu nekk nag moom page yi ni ñuy duggee ak son yi mu neexee ma daa koy changé bu defee ngir mu gën a jox ko jox ab taar ba ba mu gën a nekk loo xam ne day kon fii maanaam mm, transition li muy jëriñ mooy lan mooy animation boo xamee day aju ci jëmmi page yi ci ci jëmmi diapositive bi ci lay kon loolu mooy li ñuy wax euh, transition bi bu dee animation animation nag maanaam maanaam mooy que ni maanaam moo tamit ab benn animation la boo xamee ne ci li muy aju moom day aju ci li ngay indi ci PowerPoint misaal bu mu ci indi lu mel ne ab mbind bu ko animé ci PowerPoint lay ñëw bu fekkee ne maa indi misaal tey jii misaal boo bindoon ab texte nii boo ko animé ne buy ñëw nii lay ñëwee nii lay ñëwee boo neexee ma def mu nekk nii boo neexee mu nekk nii sans départ ci ni nga ko bëggee ba ne xëy na dañoo am lu mel ne ab photo buñ ko indi tamit buñ ko bëgg ci animation bi lañ ñëw yii yëpp rek incha allah danañ ci ñëw maam benn ñu koy defee bu baax baax ndax dañ koy dañ ciy leeral nii rek xam ne ba di ko def yëf yi gaaw gaaw wax na xëy na du aajoo ñuy taxaw moo tax waaye incha allah danañ ci ñëw bu baax a baax bu ko defee tamit euh, toujours rek maanaam animation bi euh, boo ci bësee da defal fi benn benn un un bi mooy que ni lan mooy que ni euh, yëf yi bu ma ñëwee ci ci fii nii bu ma xoolee nii maanaam yëf yi man daanaka day nekk loo xam ne day day daan ñëw xam ne bu ñu xoolee bu ñu xoolee foofu day def ab un un bii nii dana dana gën leer fi ne bu ma ñëwee fii bu def ko au def ko après la bi day nekk à zéro boo bu nekkee saaro nag mooy que mooy animation bi bi moom mooy ñëwul boppam directement nga xam ne bu ay foro bëri wala ay mini yu jeexee deuxième ne doo bës waaye bu fekkee dafa nekk ci un euh, mi maanaam yooyu boo ko indee ba pare boo daa def diire bi mooy diire bi ñaata ñaata mi dafay sax boo defee boo bësee mooy ñëw bu fekkee ne bësoo tamit maanaam mooy ñëw boppam waaye boo ko defee euh, après la précédent mooy que ne mini mi wala boog photo bi wala li ma li ma animé bu defee zéro rek mooy que ni lan bu amee diir bi day day jàll beneen daal di ñëw bu ko defee nag maanaam ni muy ñëwee comme yeexaay bi ndax da nga ko bëgg a def boo neexee buy ñëw ndax xoolee sànq nii ni muy ni muy ñëwee dafa xaw gaaw bu ñu xoolee muy ñëwee gis nga boo xoolee xaw naa gaaw tuuti bu ma neexee ma def ko mu nekk loo xamee ne buy ñëw day gën a yeex bu waa nawet boo ñëwee ci taxee ci kaw nii kawam nii mën naa ko def noo xam ne day gën a yeex nga ne mbind bi day yeex lool ba nga xamee ne buy ñëw day mel day day day am ak ak ak waaye nag boo ko defee nii boo xoolee booy ñëw te yéex ba nga xam a xaar ndax yeexaay boo xam ba tey bi fi ne dana ñëw waaye day yeex boo xoolee fi bu ñëw naka lay ñëwee ndax day gaaw wala day yeex sans dépend ci seconde yi wala minutes yi nga def fii bu dee ci dale bi nag li muy jëriñ mooy que ne jëmmi jëmmi jëmmi animation boobu noonu ñaata ñaata temps la sax pare daal di daal di jàll beneen animation daal ñëw nga ne ne nga ne la nga xam délai bu jeexee rek beneen animation mu ñëw yëpp incha allah xëy dana xaw a compliqué ci ki nga xam ne xëy na mosu koo xam waaye incha allah bu ñëwee bay defar ay vidéo ak son wala ay kii bu soobee yàlla dana gën a leer bu baax a baax euh, bu ñu ñëwee ci comme volet de animation bii nii boo xoolee da lay indil animation yi nga defar yëpp nga xam fekkoon nga def animation yu baree bari fenn fu ne nga xam ne dangay mën a taxaw ci animation bu nekk bu ma bëggee déplacé ma déplacé bu ma bëggee supprimer supprimer bu ma bëggee changer ma changer su kon animation yi bëri na ba mu gën a bi jàpparement moom maanaam maanaam mooy mooy comme comme mooy li nga gis fii ne daanaka mooy nekkaat fii rek li nga gis ci suuf fii mooy nekkaat fii fii mooy que ni lan mooy que ni bu ma fekkee dama bëgg a ci ci comme comme daa koy génne mu leer nga xam ne xam ba xam ndax liggéey baax yooyu daanaka loolu pour ngay ñëw fii muy yàgg boo ñëwee fii dana ko dala ko indi directement rek bu ko defee tamit euh, boo ñëwee ci li ñuy wax euh, ci affichage bi maanaam moom mooy nga ni maanaam mooy euh, triage de diapositive da koy def ay ay ay ay kii nga xam ne boo xoolee façon bi lay lay nekkee maanaam façon boo xoolee bokk rek façon façon normale bi boo xoolee da nga da nga def ay triage nga xam ne day day xaw ba nga xool 1 bi muy page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 ba keroog ngay wàcc suuf bu fekkee ne fii. page de commentaire bi fekkoon na xëy na am na benn page boo xam ne ba ko indee pour man man man ko faa indi bu fekkee ne fii mode mode lecteur moo tamit mooy mooy que ne pour mooy mën koo lire bu dee masque day diapositive boo xoolee da da ko da koy nëbbu dégg nga toujours rek bu ñu defee dara juum bu ñu defee annuaire bi day annuaire euh, ci ci ci lu ñu lu ñu mën def bu defee fii nii masque du document nga xam ne document bi ci boppam lañu lañu lañu masqué bu defee ni boo xoolee jëmmi document bi yëpp da ko masque fi ne boo xoolee li nga li nga ma ko defee woon ñëwaat forme normale bu ko defee mu indi laan ma yëpp yëpp nga xam ak lu bari bari bari nga xam ne tamit maanaam lu mu bari bari bu bu ko nëbbee maanaam da koy da bu ñëwaatee ci affichage boobu defaa ko ne ko yóbbu ma ko ci forme forme ba mu nekkoon bu ko defee ma daal ko ma ko ci yóbbuwaat dee fii moom mooy am na régal boo xamee ne boo ko bësee régal bii ngay gis nii nga xamee ne maanaam dangay ngay mën a natt prinçay lii ci wóot ak yëpp dañ koy dañ koy soxla bu dee gëdariage maanaam a que ni boo xool dafay am lu mel ne ay mu nekk ci boo euh, gi yëpp day nekk da koy def nga ne da koy xaaj waaye yëpp nag expliqué nga pour nga pour nga jàpp nañ ko def déedéet liggéey bi toujours li ma ko waxoon liggéey moom mooy xool li mu soxla mu def ko li nga xam ne amul ko eh, maanaam amul ko njëriñ mu laa koy bàyyi bu fekkee ne ci li ñuy wax affichage de orientation yi mooy que ne la ndax comme jàppatali bi côté bi mu féetee nii boo ma bëggoon ma ñëw côté ndeyjoor bi boo ma ko bësee dama yóbbul côté bi dama bi yóbbu ma ko bi dégg nga bi boo ko fa yóbbaadee mu ne nga lan mooy que ne damay day zoom pass bi bu neexee nga def ko 33 pour mu gën tuuti bu la neexee def 400 boo xoolee ba ni 400 nga xool day day day rëy nga day gën a rëy waaye loolu lépp rek boo neexee maanaam fi nga koy defee fii ngay defee wàññi di wàññi bu bi nekk ci loo xam ne page page normal lay doon euh, bu dee bu fekkee ne yii moom ay xeet couleur lay doon yoo xamee ne dañ ko xanin saa dañ koy utiliser lool lool bu dee fii nouvelle page bi mooy que ni xam nga boo xoolee bu ñu taxawee fii nii benn benn benn benn présentation dañ ci am bu ñu bëggoon a créer beneen beneen bees bu xoolee boo xoolee gis nga bii nii ak bii bokkuñ boo xoolee boo xoolee bii bi nga mujjee créer bi nii moom mooy mooy bi nga bi nga créé woon léegi bii mooy bii moom mooy bi nga xam ne moom nga coupé créé ko euh, ba tey boo ñëwee ci ci ci ci ci fii maanaam euh, maanaam dalay wan affaire yi lépp ni mu nekkee wala boo ko bësee dalay wan pass yi ne dalay wan ne la bii nii pass bii nii mooy mooy beneen bi nga créé bu njëkk ba bii mooy deuxième bi nga xam ne bu fekkoon mën nga mën ngaa liggéey mën naa ñu di ñëw fii di ñëw fii boo xoolee ñaari pass bi benn boo ko gis ndax pass bi li mu am lépp am na ko fii mooy kon day wane ne kon ñaari pass kon ñu nga xam ne que li ñu wute mooy forme bi mu ko bi mu ko tegee rek moom moom la changé euh, bu la neexee tamit boo ko bëggee dindi nga daal dindiwaat nii wala boog nga daal di cliquer fii nii rek mu ko yaatalaat mel mel ne meloon bu la neexee tamit mu gën a bari bu fekkoon pass daa gën a bari nii nga xam ne boo xoolee ni ni mu koy tegee bokk beneen pass la nga xam tey ji fekkoon xëy na euh, am naa misaal créé woon naa beneen misaal ma def beneen nouvelle diapositive moo nu nouvelle boo ñëwee ci bu ko réelee boo ñëwee ci ci affichage foofu noonu daal koy def euh, comme forme bii nii boo xoolee nii la teg tegle teg tegle bi boo xoolee moog tegle bi wax wane ne xaw loo xam ne da ngay gis bu ñu fekk ñëwee fii doo xam la waaye fekk ne da lay wane la nga xam ne page da xam ñaata page la page bi benn mu teg la nga xam ne day nekk nii lay teg la wala boog page teg tegle goo xam ne yaa koy maanaam moom moo ko defar moo ko defar bu ko defee nii yow nga daa koy delluwaat nam nekkoon misaal xaaj ko nii daal di jëlaat bii daa koy xaaj nga xam ne pour rek nga xam ne da ngay mën a jàkkaarloog ñaari ñaari pass yëpp nga xam ne boo ci ma boo ci bëggee a rek misaal boo bëggee jël jël fi dara indi fii jël fi dara indi fii boo ko bëggee rëylaat mu ñëwaat fii mu daal koy rëylaat comme ñi nekk kon euh, loolu mooy li woon ci li nga xam ne maanaam moom mooy euh, li aju woon ci commence bi nii bu ko defee nag maanaam euh, bu ko defee nag maanaam bu ñëwee ci fiise bi fichier bi nii liñ ciy leeral rek moo tamit mooy que ni bu fekkee ne PowerPoint mosuñ koo enregistrer dañ ñu ngi ci doog a dugg nii day day ñu ñëw fi ñuy wax enregistrer sous bu ñu enregistrer sous daal di ñëw daal dem ba fu ñu ko fu ñu ko bëgg a enregistrer misaal document fu ñu neex fii nag lañ la ñu bindee tur yi ñu xool fi ne tur yi fi ne bu ko changé benn ci lan naa ci bind naa ci bind loo misaal bind ci ci loo bind daa koy xam fu ñu ko léegi ni ñu ko inséré ci ci bureau bi nga xam ne pour mu a neex a gis daal ñu ñëw bëgg ci liggéey mais beneen liggéey bu ñu ñëwee mu nekk nii boo xoolee boo ci duggee del xool ci kaw loolu la mu bind ndax ndax dana bind lam lam bindoonam déet nañ xool boo xoolee fii est-ce que bind na présentation bind mi ngi bind lan loo murta daa mooy que ne kon document xam ne kon tur wi foofu lañ koy changé bu fekkee ne fii moom buñ buñ ko xasee inséré suuf ba pare nag moom ëllëg na si biir ñu ñëw defar ci ay modification ñëw misaal yokk ci dara lu mu mën a yokk ak lu mën a doon bu ñëwee fiché jëruñu def entrée suuf ndax ndax ko entrée benn yoon te loolu loolu day dañu ko yàqal waaye nañ ko def rek ne ko bu ko defee moom directement da ko yóbbu ci entrée bu njëkk ba du aajo nga nga nga ci nga ciy nga ci def leneen euh, bu fekkee ne tamit ci ferme gi maanaam maanaam ouvrir ma ngay ubbiwaat beneen ci ci milaf yi fii maanaam ay milaf yoo dencoon bu fekkee ne ferme moom mooy da nga ko da nga ko tëj restreint mooy yi nga mujjee def toujours yi nga mujjee def mu indi la ko fii dégg bu ko defee nouveau mu fekkee da ngaa bëgg a créer beneen bu bees beneen page bu bees nga xam ne maanaam te page boo bëgg a créer bu bees nga xam ne fii ngay ñëw boo xoolee yii nii moom da ci am yoo xam ne day aajowoo maanaam comme bu ñu bëggee euh, fi ma cliquer li mu indi foofu mooy que dama ko cliquer ci fi ñuy wax euh, ay shahada bu mu bëggoon fa ay shahada waaye shahada yi da ci am day lànk waaye moom toujours bu ma ñëw bu ma see nouvelle bii rek daal di ñëw créé bu ma see créé mu indiwaat beneen page boo xam ne bokk na page bi ñu nekkoon léegi boo boo xam ne page bi mi ngi tudd présentation 1 bu fekkee da ngaa ñëw ci page bi njëkkoon nekk moo nekk nii maanaam amatu amatu beneen kii lu ci lu ciy dem bu fekkee ne da ngaa ñëw ci bëgg ko imprimer fi ngi ñëw imprimer ko bu fekkee da nga da nga bëgg a enregistrer fii tamit am na solo loolu incha allah dana ci ñëw ndax fii moom ci nga koy defee vidéo nga xam ne da nga ñëw enregistrer bii daal di ñëw fi ñuy bind créer un vidéo nga xam mooy mooy fii ni créer un vidéo bu defee daal bës créer la vidéo bu ko boo bësee rek yëf yi de commencé di di dem nekk ab vidéo waaye incha allah yëpp danañ ci ñëw benn par benn euh, ngir mu gën a leer kon yaakaar naa ci gàttal rek PowerPoint bi checklist xaas ci anam gu gën a gàtt taarif nañ ko wax li nga xamee liggéey yi nga xamee mën nañu mën a def yu bari bari bu ko defee nag les leçons yii di ñëw incha allah danañ ñëw commencé directement rek daal di wax maanaam misaal bii di ñëw dañ koy jagleel ci misaal rek dañ koy jagleel defar carte membre wala boog ñu jagleel ko defar lu mel ne carte d'identité wala boog ñu jagleel ko defar vidéo wala ñu jagleel ko defar benn présentation boo xamee ne ak leçon lay doon incha allah benn bu ci nekk rek leçon yi di ñëw incha allah baax a baax di jégalu bu a lépp loo xam ne lënt na ñoo xam ne si suñu ñàkk mën a leeral la lépp lu ci leen ñoo xam ne dimbali suñu borom la di jégalu bu baax wa rahmatullahi taala wa barakaatu الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس